asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokki yoof dama ni waa yoof balaa may wax faites du bruit pour Abdoulaye Diouf Sarr du bruit pour Abdoulaye Diouf Sarr dégguma bu baax Merci. amin amin amin yàlla na ko yàlla nangu di nuyu waa Yoff góor ak jigéen mag ak ndaw di félicité waa Yoff ci mobilisation bu exceptionnelle bi dama ni mobilisation bii nat mobilisation Yoff kese la mobilisation Yoff moo man yeneen mobilisation yi ma gis mu nekk département wu yeneen candidat kon nag mbokki Yoff ñu ngi nuyu ci borom ndombo yi ci borom manto yi ci borom kilifa diine yi kilifa aada yi di am mbégte di teew fi Yoff di ñëw di seet si samay mbokk seet si samay xarit di seet si samay dëkkandoo di leen wax ni leen tey jii dama bëgg ngeen déglu tuuti rek ngeen may ma tuuti dégloo dafa am ñaari kàddu yu ma bëgg a wax ñaari kàddu yu gàtt la waaye kàddu yu am solo la di nuyu nag ministre bi nekk député yi haut conseiller yi directeur généraux ak ñëpp di féliciter Pape Mayel Diop ci cër bii ko jox ci bët bés bi mu yelloo ko mat ko mën ko def ko ba mu rafet monsieur le maire de Dakar Abdoulaye Diouf Sarr dama bëgg nga déglu baax a baax doomu penc moo indi nuyoo pencu Ndakaaru jox ko doomi tàng voilà dama kuy doomu lépp fii ci Sénégal Jariof président sas na la sas na la ndaxte jël na Ndakaaru delloo ko di na xam ni ñoo ko sos daal di ne fii ku fi dëkk raw loolu mooy ndakaaru dëkk raw loolu mooy ndakaaru Abdoulaye yow la président Macky Sall jiital juumul yow la président Macky Sall jiital tu es le meilleur choix waaye waa Ndakaaru dafa am loo bëgg ko mbir nii ngeen koy comprendre dafa am ko man mi ngi nii may Abdoulaye koy jéem ministre Abdoulaye Diouf Sarr futur maire de la ville de Dakar li ñu wax moo di ñun ñu fecc ci wàllu penc dina la dajale lépp takk ba mu mat ñu takk wax ni la nii nga defee mbir boole ñëpp ubbil ñëpp ànd ak ñëpp noonu la ànd ak yow bu le 23 janvier jote fas bi dañu daan wax fas bu ñuuloon day kumba tey nga naane juwaalu mbaa nga naane saalum waaye bi yoon fas bi ville de Dakar lay naane hôtel de ville lay naane Abdoulaye Diouf Sarr moo ko yóbbu yàlla na ci Yàlla yóbbu jàmm ensemble biir Abdoulaye Diouf Sarr biir Yoff biir Benno Bokk Yaakaar biir Abdoulaye Diouf Sarr maire de Dakar yàlla na ko jàmm jërë ngeen jëf. damay jëkk nuyoo di nuyu cosaanu Yoff bu ma nuyoo cosaanu Yoff def naa nuyoo bi si loxo borom Yoff fi ñu toog tey. yaakaar naa ne ku fi toog nuyu fi jotaale yow wàcc ba kon nag fekkente ne garan bi mi ngi fi dama waxal maa la jërëjëf magam subala gal magam den may kon nag nuyu naa nuyu naa bu baax Jassane Yoff naka laa gëm mooy li garab bi wax leen mooy dim yow di ko teg si autorité coutumière et religieuse yi fi nekk di nuyu képp kuy euh, ministre député maire investi pour être maire au soir janvier 2022 mais suñu invité yëpp maa ngi que tey wax ji du damay remercier rek waa parce que ñoom ñoo ne tey dañ may investir sama véritable discours programme par rapport aux enjeux de Dakar, par rapport à la ville de Dakar, Inch'Allah, très bientôt, nous allons faire un très grand de présentation des investissements de Dakar pour présenter à la face du monde et aux populations du Sénégal et de Dakar notre programme un programme extrêmement ambitieux pour reprendre Dakar bondeeg bi ci sori tey Yoff boo xewee bondeeg waa Yoff aw ma seen fay depuis mais maa ngi remercier aussi sama naataango yi ma guddee pour Dakar di leen wax ne yokk ngi nii incha allah comme d'habitude fi danañ une victoire éclatante la victoire de Yoff sera parmi les victoires qui vont tirer la liste de Benno Bokk Yakaar ici dans le département de Dakar kon nag du parce que yàgg nañ fi dama bëgg rek yéen. ngeen wax man ne ma ëpp na mbërëm ëpp na mbërëm doomu jaay